fii ci jàkk yi ci ñu feebar ñépp lu mu xew rek xam nañu ko moom mii wajur la wóor nga demal ma fa liggéeyal ma fa mu commencé ko depuis daaw jéeg di ko jàppale niñ seen soxla yi jàppale ju woddu yi woddu jàkka yi ba élection yi jot mu ne ko suma soñoon nga jàppale ma kontaan lool ci jëfam ñett li ñu koy sant mooy jëfam sa jëf jiif na lu fi ci kër gi kon nag ñëw nga fi ndax yàlla moom du wax du wax jëmm lan lay waxal mooy jëf ngeen jégal ma ci wolof bi nag du leer waaye yow sa jëf ay gàmmu yëpp da ngay yónnee fii say teraanga nga indi ko fi kalaas sama gis yëpp ngeen baal man dama koy tooñ sama kal la dañu fi ñëw rek di dem di dikk waaye fekk àndul ak jëf yow nag sa jëf moo fi ñëw sant yàlla parce yàgg naa gis sa yëngatu même ci wàllu santé bi ñu dañu am ay daara ngay woote même amoon a Mbagnick Sarr ku dëkk fële ci wetu euh, stade bi kooku sa maam nga koy wax te kooku sama mbokk la ci wàllu deret kooku suñu lépp la ñu fonde jàkk bi ci la bokk ñu sant yàlla waat bi nga bu la fi yàlla indee tey nga xam ne nag élection ngay ñëw campagne ngay ñëw mais incha allah campagne bi na jeex ci ci ci jàmm te da ngeen am ndam incha allah ci jàmm yàlla na ko yàlla def yàlla na xam ñun suñu ñaan nag du ànd ak tàccu ñun suñuy ñaan du ànd ak tàccu yàlla la ñu toroxlu loolu ñaan la incha allah na incha allah di ñu waxtaan ci ay projet yi ngeen lal ngir réew mi ñun tamit dañ ci am part responsabilité lépp luy doxal réew mi jëme ko ci kanam dañoo njaboot ci santé ci fànn boo jël rek ci wàllu jàngale ak njàng ak jàppale yooyu mooy suñu liggéey ëtt bii nag ëttu Ceerno Abdul Sall tudd xadaraam mu ngi jóge ci Seydou Nourou dem ci Alaaji Malick xadaraam mu ngi jóge ci Alaaji Malick jëm ci jël jëmee ci Alpha Mayero hadra mu ngi jële ci Alfama Yero dem ci Cheikh Umarul Fouti kon nag jóge ci Cheikh Umarul Fouti dem Seydou Mouhamadul Ghali ak Cheikh Tidiane ñooñu la ñooy ñaanee ñun ci seen barke yàlla na ngeen am ndam ci barke yonent bi salaa sallam di sante nak di gërëm dina ñaanal yàlla su élection bi passé incha allah ci jàmm dañooy toogaat maak yow ak Cheikh ñu nas loo xam ne day jëme dëkk bi ci kanam day jëme Sénégal ci kanam wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين teral nga ñu nuyu nga ñu ñu lay delloo nuyu bu ëpp boobu bu ànd ak ñaan ak jàmm ak teraanga ak yaatule yal na yàlla mu defal yéegu ci barke yonent bi sallallahu alayhi balaa nga kii nag léegi la ñëw mais kii day wax sa wax toujours Umar mi ma seedeel la ko nga bàyyi ko xel bis bu ne day ñëw fii di wax sa wax li sa wa ñëw fi tey dafa ñaa dafa ma xaw a njett rek su woon dem koy woo mu fekke ko mu gàttanu ko waaw waaw ñu ko ñuy sant yàlla xanaa def ñaan yow leen am na fi nekkoon dañoo dem ci wasifa bi loolu moo tax loolu moo tax ñu faaj ña ngi ku sincère nit ku dëggu vraiment il fi professeur de PC. après mu jóge foofu dem ministère de l' éducation nationale ba yàlla def li gën bi ma ñëwee fii. di jaale sa ci laa fekk tonton Cheikh Kan mi fekk mu ne sama sœur dafa gaañu xaw ma woon ni ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay même Binta Kan aussi tata Marème Ndiaye mel ni Sidi mi nga xam ne sœur la ci manam day tikka Ndiaye Diop moo ko boole woon ak Binta Kan lii suma sœur bi wax suñu woote woon kenn du fi xëj dinañu woote on va faire un après venu président dinañu woo ñëpp fii bu boobaa nit ñi dinañu gis que jàkkay Tukulóor est acquis à nous autres. tubaar fakkaat la da jaboote ñëpp ndax Ablaye mbay yaay yaayam yaay léppam ko xam ab Ablaye xam ko ci yow tubaar fakkaat la nag li docteur di wax rek ticket gagnant ngay jigéen ji man góor bëgg ñëpp nag moo dukkul bal yàlla mu daa dem. yàlla dogal na sunu xale yi ci koñ bu Ceerno lañ nekkoon bu yàlla dogalee ñu ñëw fii ci ñun tey nday dikkee dinañ bëgg nga jàppale leen nag ndax nit bu jógee ci fenn dem ci fenn bu ca amul njariñ gisu ca boppam mën naa dellu ginnaaw te xale yi na xale yu am positif lañu mu ñoom Modou ñëg ñoom Samba Kumba léegi laa doon waxtaan ak Samba Kumba mu ne ma ci naka ma ne ko ci naka bi dañ ko waxtaane kon nañ waxtaan ak yow ñëw sa kër nga jàppale leen ñu mën a sumb mën a wëri ñu ci des ndax ñoom xam nañ ñi ñi toog ak ñi bokkoon ci Cerno damaa añ rek génn wër naa fi ñëwoon naa fi koñ bi wër naa ko ma dégg ngeen ñëw ba fii ma dégg ñu wàññi ko ma ne waa ñooy kookal ñu ne ma dee tikke ma tax ma wàññi ko fan nekk yaa ngi kër Lamine porte à porte laa ko def genn kër laa dem ñu waxal ma ne ma ñoom bokk ñoom APR koñ ba nii ba nii wër naa ko barkañ tol màkka leen seedeel li tax yow wax nga ko léegi nee nga tikke xaarul dara politique bi day dunde politique day dundal politique bi xaarul dara nee nga day génne ba nga ko naan wàññil tikke nag loolu da ko cee fekk ndax tikke macha allah da cee juddu yaru ci comme ni nga waxee léegi sa di te yàqul juddoom ndax tikke dafa dëkk dëkk di doomu ajanguy baaba ak yëpp sa buri nguy farimata ak baaba ab sa ndeene di bete bete njaay yab sa tikke ndaw ak alipay génnul fenn jolof wax ngeen ko léegi ni mbokkum baara siidee moom baara baaye ma frère la nijaayam la ñoom ñépp ñoo bokk biram penn ñeemi tikke nag juddu ci mbir mi ndax ku xam nguy baaba yaayam ci social nga ko xam muy dimbale koñ ba mu dëkk ku xam yëpp sa buri baayam xam nag lu mu def ci jàkka yi fii ba ersan fii ba daaru salaam fii ba cité ousmane ngom ngi mu dëkk pab yab sa jakai rek lañ ko xam suñu doom ja nga xam ne yàlla na ko yàlla yërëm muy bakar lan ko du jàkka rek la fi nekkaloon ba suñu borom jël ko ñoom loolu lañu xam wodd xam teral nit lañu xam génne seen alal di joxe lañu xam tikkee balaa muy dugg ci politique nekk fonctionnaire international comme ni nga ko waxee moom ak borom këram tikke lu mu defal nit kookaay génn wax ko dikkee mbaboor yàgg na ko topp te xamul luy politique su mosaan ñëw këram nit ñi dañ koy ràng ku dugg mu fajal la sa soxla këram wutalul kenn sens interdit kuy jolof-jolof xam nga dikkee ku ñëwoon keroog ba muy def rentrée politique am xam nga ni foyewul boppam kon kooku su président jëlee responsabilité teg ko ci loxoom du jël la ko président jox di am fu mu koy dugal wala nu mu koy def day jël la ko président jox jox nit ñi bu jeexee mu jël alalam di jox nit ñi ndax waa wàññiwu ko dara ci la juddu ci la yaru ci social lay dund ba mu nekkagul ci politique yaakaar naa ni waxuma Tické de waaye yaayam papaam sëram macha allah c'était Ousmane Ngom gée Marème Kase waroon na fee taxaw léegi mu dëggal li ma wax bari na fa tey ñuy fayeeku te ci yàlla ak moom mii la du diggaate nag ñëw ci kër gi waaj naa ba tey waaye tey la ko dogal ma ñëw kan ñëw seet si suma yaay ànd ak mu dalal ma parce que temps yëpp ma nan ko na damay dem seeti sama sama yaay ci depuis xew-xew bi am fi fekkuma fi waaye dama yónnee délégation ñu ñëw waaye loolu doyul mu am bés ma ñëw ba fee far ñu te ko mu ni mi ngi Dakar yegg ma kon di ko waaj boobu ba tey tey la ko yàlla dogal di def nag bala may sori di jaale ki nga xam ne moo fi jógee dina sax waaye nag dafa nekk ci sama xol il fallait que ma def ko xam naa li nekk ci perte euh, rakk wala mag wala ku jege parce que man dal na ma dalati ma kon lu metti la xam naa ni mu mel di nuyu Cheikh kan bu baax la nuyu yow kole di nuyu Binta mi fi nekkul waaye di nuyu aji mati euh, mati kenn la ñun Cheikh sama frère yéen ñi fi toog samay waa ngi fi euh, yi maa ngi leen di nuyu bu les jeunes qui sont là je vois des naa wax bi waaye damay rek d'abord sama digganteeg Cheikh xam nga gis bëgg koy def euh, depuis ma ci politique Ciracas may wax dëgg nag di ma ko te loolu dafa jafe dafa jafe bi ci des des ñu montre yi bokk nañ mooy bokk heure loolu la ñuy wax yonent bi baax yi ñooy bokk heure waaw voilà donc mu ngi noonu en tout cas am naa mbégte ñëw ci kër gi bu baax a baax et puis euh, defe naa tey nag xamante ak Codé parce que xaw ma ko woon moom Binta la ma Marème boole lool sama sang bu baax boobu di Marème Ndiaye si di mooma boole woon ak Binta te depuis wax dëgg yàlla ma gis ci moom nag li ñuy gis ci doomu nit ku baax li ma gis ci Cheikh ma gis ko ci moom wax dëgg yàlla mu baax ku yaru et ku gëm boppam nit ku baax dafay gëm boppam gëm bopp du tax nga euh, du tere nga humble euh, gëm bopp du tere nga mm, baax xol waaye dafay fekk na dafa am loo gëm te nit ku baax dafay am lu mu gëm mooy ay valeur am ay principe ci àddina te loolu laa fi fekk kon jërëjëf li ci des nag mooy rek xale yi je sais amoon nañ fu ñu nekkoon ni ko Macky waxee loolu day am ci jaar jaar parce que ngeen doon nekk ñii ñoo ma nekkoon te bu xaw amoon na fu ñu nekkoon ainsi de suite mais politique nag dafay dox dafay dox te bu defee ngeen am ñu bari amul pour bañ a wax ku kenn amul da ngeen koy ràññee te bañ a bañ a dem euh, dem ak affection de ak réalisme xam ne kii moom la fi yàgg benn ñaar ngir liggéey na patriote la nangu ne Macky Sall ku sam la ngir développement la def jëm ci jëm kanam waaye askanam aussi jëm kanam ci yenn yi non de il faut faire preuve de réalisme dem fa nga xam ne que ne foofu la parce que dafa am lu am ñun ñëpp ay jullit lañu bu amee quelques chrétiens am na fu ñu lu ñu gëm am nañu au moins foi ñun mën nañu wax religion yi yëpp dafa ànd ak loolu Macky yàlla moo ko fal boo xoolee cursus bi jaar egsi fii ni mu defee sept ans yi ak ni yàlla indee xéewal ci réew mi ak ni yàlla ubbee porte yi chantier mi yi mu rëyee yàlla may ko mu di ko réaliser sans problème ñu war a nangu na kii yàllaa ko jàppale yàlla ko indi au bon moment il a fait un bilan élogieux un bilan éloquent waaw léegi defaat un programme ñëw ne joxaat leen ma un deuxième mandat rek laa leen laaj ma eggale yi ma def sama mébét yi yii ma commencé ko bon xëy na dana am lu ma ci yeggale dana parce que nag projet noonu la da ngay commencé am yoo yeggale am yoo xam ne keneen da koy yeggale Majigin cam, galap penak modu penak bau, gunung mi caam maji gencam caam ngala pelak mudu pelak mau gunung bi caam de sango dégguleen kii bum uwi ko ajande jigéen lay wayal wai yiw daal teral ngebur teral bandul teral nga mas maas si de sango dégguleen kii bum uwi ko wayal wai yu dal teral nga buur la ñëpp taaxaw fu la xalaat boole la am lu ñu amul ñu fas yéene jàppale sunu président Sénégal déggu leen kii ba ma woy ko Macky Sall lay woyalaay yu teeral nga say maas waana ñëpp taxaw fu la fayda ba ko xalaat ba ko gis-gis boole lu ñu amul ñu fase la jàppale nday tike njaay te tukulóor aliraasu burge la jël kañ fara taag jaabi kañ la doyaa kañ la man fas fas naa bu ñu fas faaru fas fas la ba wax fas naru gor cey naru gor la cey naru gor cey sama tor mama ki la nu àndal Macky sal la no andal ñi ngi dalal suñu leader nday tike ne la dalal jam ci Cité Senghor ñëw nga ci ay baam ay femmes yu brave fami yo xamanteni ñu gëm seen bop lañ femmes yo xamanteni tay fi Cité Senghor mën naa ne bokk nañ si ñi nga xamante ne tey jii kii nañu ay formation yoo xamante ne def nañ ko wane nañ ko bi ngay dugg si léegi wan nañ la benn drap drap bii fii laa nekk ak ñoom ba une heure du matin ñu koy defar donc ñooñu elles sont engagées ñooñu bëgg nañ li ñuy def ñooñu bëgg nañ ñu leen jàppale ñun nag li ñuy wax du bari parce que famille ñoo moom lépp tey électorat bi famille la sax xam naa ne fii si Cité Senghor mën nañoo ni wax ñun ñi nga xamante ne si comité bi lañ bokk xam nañ femmes yi lañ doon liggéeyal porte à porte yi ñuy def yëpp mën naa ni nombre bi yëpp la góor ñi mën nañ leen a compter donc am nañ yaakaar si loolu. ñoo ngi lay dalal jàmm Ndiaye sa yan bi yàlla na ko yàlla oyofal may gërëm nag waa koñ bi yëpp ndax ba ma ba ba ma kii di woo léegi ba ma ba ma ba ma madame di woo daf maa fekk ma ni formation moo tax sax affaire yi xaw guddee nii tamit ni ñi yeme nii wante ndeytike li lay assurer man. man Ndeye Sow wax de booba ba léegi ba nu commencé campagne ba tey amul benn jour boo xam di une heure du la ñuy tëdd dañuy porte à porte koñ bi koo xam ne kii am nga foo aw ñun xam nañ ko ñëpp a fi am ay carte d'identité nag man li ma leen wax mooy kuy ñëw ci sama groupe te mu leer na ne feneen nga dem du ma ànd ak yow carte d'identité yëpp a nga nii ñoom ñëpp ko am te ku ne am nga sa doom man nga xam mbooloo moo xam ne mii dañuy nekk àddina ni te dëgguwuñu man fukki nit yu dëggu ma gënal te yéen xam naa ne dëggu ngeen man léegi laa ñëw 6 ak ma fekk formation léegi laa ñëw woole ñoom ñëpp ñu génn kon nag maa ngi lay ñaana ci barka yaarab bi billaay walaay taala yal na la yàlla may ndam lu sedd guy Cees waaw di nuyu ñi ma fi fekk ñëpp ak Maodo Ndiaye mi mujj wax di wax nag sama mbégte ñëw fii ci cité Senghor bokk ak yéen jataay bii ñu fas yéene waxtaane Macky Sall rek waaye Pape Alioune maa ngi lay remercier eh, ci way bu neex boobu waaye ñu ngi lay ñaanal nga nekk mag ñu ngi lay ñaanal sa carrière bii nga boole ko jàng bi li nga ci bëgg yàlla na la ko yàlla defal li sa waajur yi bëggee yàlla nañ ko yàlla def Euh, li ci des rek xanaa mooy waxtaane li ñu fi indi di ñaa waaye bi ma déggee ndey Sow wax Mamadou Ndiaye wax man fii mënatuma ne dama leen di convaincre parce que nag dama fekk ñu ànd conviction waaw dama fekk ñu maîtriser li président def kon yéen du yéen la ñuy convaincre xanaa kay ñaaxaat rek ne ngeen xool ci biti ñi nga xam ne wóor leen na ñii ànduñu ak Macky Sall ni ma koy defee ngeen defee ko noonu ñi nga xam ne que ñu dañu toog jàpp seen njàmbu ah fa suñu yéene bokk ci làng gi ñoo xam ban raison moo tax ngeen wax ak ñoom ci jéego yi président Macky Sall def ak li tax ñu war ko voteel loolu rek defe naa ne moom la président wax nee na bu kenn xeeb kenn nee na bu kenn wan euh, ñàkkal fayda kenn nañu déglu nit ñi di xam lan mooy seen métit xam li nga xam ne que ne xamee wuñ ko u comprendre wuñ ko li muy def ku ñu gis loolu ci yow ah ñu ñu expliquer la wax ak yow bala nekkoon ci yow dañ parce que am na ñu bari dañuy wax waaye comprendre ñu xamuñu kon ñooñu lool du seen faute dañu mën rek def ay stratégie waxtaan ak ñoom ba delloo si leen damay wax ak yéen rek ci ñaari baat walla ñett waaw ñaari baat ba ñett muy yéen jigéen ñi euh, d'abord parce que euh, da ngeen di xool ba président Macky Sall jëlee pouvoir ba tey dafa bari ay jéego yu mu dem def ko ci jigéen te ñu bari réaliser wuñ ko bi ci njëkk mooy lan mooy panier de la ménagère ku ne xam ne ne kër yi jigéen ñee ko abe waaw ki wàññil li ngay jënd yépp pour jur def ko jumtukaay biir kër muy li jëm ci lekk muy ci jëm ci gaz lépp a wàññeeku yemul ci loolu bi mu wàññee ba tey prix yéegatul kooku kan la ko defal ku muy jigéen waaye li ngeen xamul mooy prix yooyu moom dafay fay différence bi ça c'est important

waa loolu jógu fi nga dem beneen bi may wax mooy luyaas ku ne xam na ne néew ju doole da ci bari dañuy luye mu ñëw wàññi forse borom ñi amee kër yi ne leen faw dangeen di wàññi luyaas yi ndax sénégalais yi attanuñu ko surtout couche bi néew bi doole nañ ko yokk bu leen neexee gi ñu mag yooyu yëpp wàññeeku te lii wàññeeku Sénégal wàññeekuwul ci beneen réew ci yeneen réew yi yu foofu dañuy appliquer réalité prix yi mu am nag ñuy ñëw di leen wax naa jox leen ma réew mi waaye da ngeen a déggul parce que dañu leen wax ne ñooñu dañu wax ne bu ñu jëlee réew mi fiscalité bi dañ koy gën a eh, yokk ñu mel ne ñun eh, les les fonctionnaires dañoo wàññi suñu ay impôts nit ñëpp dañuy waay impôts yi Macky Sall ko wàññi. waa ku ñëw naa la man damay yokk impôt da ngeen ko da ngeen ko da ko nangu jël kon nag ci loolu du ma wax sax route yi parce que dugg ngeen ci Ila Touba kuy dem Dakar xam nga ne tey jii euh, euh, amatul yàkkatu say sa temps bi ngay def wàññeeku na kuy dem Touba xam nga ko ku dem Tiwaawoon yéen ñi dem ci Njaasaan ak Tiwaawoon ak Ñaseen fële Kaolack ak feneen ak feneen ñiy dem ci jàngu bi xaw ma ndax am na fii ñu dem ci jàngu ñu fi nekk wala déet Macky Sall fu nekk laal na fa loxo secteur bu nekk laal na fa loxo. ceebu mbay bi fii mu nekk nii ñun ñëpp moom la ñuy lekk suñu kër yi ku nekk xam ne ni prix bi wàññeeku na waaye non seulement dafa wàññeeku mais dafa gën a bari loolu mooy autosuffisance alimentaire ñu ngi aspiré ci loolu waxuma gerte waxuma nag produit horticole yëpp waxuma euh, euh, nu mu tuddati euh, vache yi nga xam ne dañ koy indi jële ko bitim réew di ko croiser ak yi nekk fii insémination artificielle di yokk meew yi ci des wax ngeen ko meew léegi dafa bare loolu yëpp ci race yu bees yi mu indi di def croisement moo ko indi agriculture ñu mécanise ko pêche bi ma nekk te duma ci wax lu bari lu ne la ci def ay milliards yi milliards la ci tuur pêcheurs yi ku jënd benn moteur dindil na wàññil nañ la benn million ci sa moteur loolu kan moo koy fay moom moo koy fay fi ñuy wàccee jën yi yëpp dafay aménagé te parewul chaîne yi nga xam ne du jeex femmes yi nga daan def lekk keccax gi léegi ñu ci bari dañuy lakk keccax lakk keccax def ko foo xam ne dafa am euh, garderie d'enfants mais dafa am infirmerie ñu sol seeni blouse ñu jox leen ay jumtukaay yu bien loolu dafay influer ci qualité bi ñuy exporté Waw kou kou, dou gen kou wote? Yen kou gen di wote el, li pap alin wak, maki sal gen di wote el. Maki sal gen di wote el. Maki sal gen di wote el.